Salam ñu Nous di venus di leen ziar di bu ravi de vous retrouver sur euh, OSR avec un immense plaisir di leen sans su nekk euh, les patriotes les fervents militants du président Ousmane Sonko l'espoir du Sénégal l'espoir de la jeunesse démb ñëpp kontaanati nañ comme d'habitude su mobiliser rek ñëpp xam ne lépp la mobilisation boo xam ne naturel une mobilisation naturelle ñoo xam ne dañuy le président Ousmane Sonko woote ba ñu passe pour mën faire dem fekkee ji meeting bi ute nag ñi nga xamante ni mooy waa Bennoo Bokk Yaakaar yi Macky Sall nga xam pour ñu dajale ay nit dañuy fay mais président Ousmane Sonko il n'a pas besoin de payer pour pouvoir mobiliser mobilisation am dafay naturel maanaam comme benn sëriñ bu oote gàmmu walla oote màggal ni ngay amee plaisir di dem di teewee ji gàmmu geeg màggal yi nga xam ne yaa jël sa xaalis paas walla soo yoree oto nga def ci essence président Ousmane Sonko su ootee noonu lay mel Macky Sall nag wax dëgg yàlla dafa war a def لنيو تودي جبلو خم نغا سوكو جبلو كم نو بالخيس دفن لا رين دي سبا موك يونان تيالا سليمان بنيو داجي بالخيس دفن خالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ماك سال فوفلو tollu instant bi loolu la war a def su ko defee mu noppalu parce que mbooloo mi topp le président Ousmane Sonko xajuñ ci kawam te gis voyez déclenché la bi Ousmane Sonko pour force de l'ordre yi là. Nous sommes là pour dañuy peuple jamais L'armée bi moom kenn xalaatul loolu moom ci que nu c'est clair parce que nous avons une armée républicaine mu ngi def ay manipulation lune mon def Sénégal, guerre civile le bug Sénégal c'est loolu manul am Sénégal nous Nous loolu pas am ñun nous nga dañuy guerre suñu biir jamais nous loolu Nous ko def ba ne lu tukki ñun nous de yi nga am problème di guerre nak benn doomi adama benn jëmm doomi adama ak groupe mu Andal. un petit groupe. boo xamante ni ñoom ñoo nekk au sommet de l'État di noos am seen ay privilèges seen avantage ak ay honneuru État mu jaral leen ay nit wàcc ci mbedd mi naan dañuy guerre jamais ñooñu matuñ sax mille personnes ñooñu c'est un petit groupe réew mi moom lañu ñu war a jiital intérêt réew mi la ñu war a jiital réew mi daf ñoo war a gënal képp koo xamante ni da ngay dund réew mi moo ñu la war a gënal réew mi stabilité am daf ñoo war a jaral lu nekk même ñu ànd ak Macky Sall tey waruñoo topp seen bànneex wala topp bànneexu Macky sàll pour toog jalgati constitution bi ne dañuy jiite Sénégalais yi par force waru leen jalal réew mi di tàkk dañoo war a nekk ay républicain mais comme Macky sàll def na ñaari mandaayam jeex na na dem yoonam Macky Sall amul droit di ñu tànnal ki war a nekk président ak ku war a nekk président justice bi tamit am na si ñoo xamante ni xëy na promettre nañ ko ne ko li mu bëgg mën nañ ko ko defal ndax lan jox na leen xaalis jox leen ay suuf parce que loolu du ko duñ ko ko defal ci nen duñ ko ko defal ci nena buñ ko koy defal dafa am lu tax ñu koy ñu ko koy defal te ñooñu ay benn benn personne lañu rek mooy les pourritures de la justice ñooñu ñoom <laughs> ñooy toog ne ñoom ñooy éliminer le président Ousmane Sonko mais loolu manta nekk kon delloowaat si leen seen xel te xam ne Sénégal du jeex Sénégal gii nii da ñëw fekk ko fi te dangeen di dem bàyyi ko fi lu yàq Sénégal nag waru leen kaa def luy taal Sénégal waru leen ko def Sénégal mo leen war gënal Macky Sall war gënal ñëpp waaw waaye topp seen ay intérêt personnel di taal réew mi ci ay fen ak ay caaxaan ci constitution loolu warul am loolu képp ku ko def ba mi tàkk tu rendras compte un jour un jour viendra tu rendras compte parce que dañoo mënta nangu constitution boo xamante nii ay sénégalais ñoo ko voté li ci nekk leer naññi Macky Sall ñëw daf ay conneries daf ay scandale moog ñi mu àndal ndax bew ak réew ak xamadi jàpp ne képp kuy dund ñoo la gën parce que jox nañ leen nguur ñuy def lu leen neex ñu jàpp ne loolu du mas a jeex ñu xam ne mbir mi mu ngi waaj jeex nag. léegi ñu soppi ko violence waaye mbooloo mi ànd ak président Ousmane Sonko bés bu Macky Sall jógee ne day éliminer le président Ousmane Sonko bu mbooloo mi jógee dina xam ne lépp dëgg la su boobaa luy tooy ci moom lay jógee de billaahi wallaahi wa tallaahi kuy mbokkam na nga ko jox ay conseil ku ko bëgg ak ku bëgg Sénégal na nga pour waxtaan ak moom ne ko mu bàyyi réew mi parce que waa réew mi dañ ko en 2012 te bëggatuñ ko mais c'est clair bëggatuñ ko ba pare mandaayam mi. dafa dafa jeex mais il a épuisé ses deux mandats def na ben, def benen. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs c'est clair Quel est le jiite Sénégalais yi kenn du nangu mu ñuy tanal ku wara nek candidat ak ko wara nek candidat wala ku fi wara nek président ak ku fi wara nek président Ne bàyyi Sénégalais ñu tan ki leen neex na bàyyi sénégalais ñu dem bind ci liste électorale bi na na jox sénégalais yi seen ay carte d'identité ak seen carte électeur ñu dem xool ki leen neex ñu voter ko loolu mooy indi jàmm ci dëkk bi mais benn doomi aadama bu tekkiwul dara ak groupuscule bu mu àndal un petit groupe du ñu nangu mu ñuy téye sénégalais en otage lu mu leen jaral lu ko ëpp la ñu war a jaral pour suñu réew mi ñu teg ko ci yoon waaw duma leen bañ bëgg a dee duñ dara Ousmane Sonko kenn du ko fi éliminer Ousmane Sonko nit ñi dañoo am si moom yaakaar yow nit koo xam ne bu ootee nit ñi ñëw su génnee ci mbedd mi nit ñi topp ko xoolal démb bi muy dem ci meeting bi rek pour mu àgg ci meeting bi rek c'est c'est c'est un problème ah loolu moo tax ñuy bañee autoriser ay manifestation parce que rassemblement yu muy def ñoom mënuñ kaa def ñoom pour ñu def ko ñoom même président bi pour mu def ko rek

président boo ko nekkee un mois sax da nga war a sant yàlla jiite 17 million de sénégalais te gënoo leen ëppoo leen njàng gënoo leen juddu am amoo dara loo leen gënee lu dul xulillahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha yàlla mooy xool ki ko neex mu jox ko nguur léegi nag yow ñu jox la nguur gi nga jàpp na lii yaa moom bew ànd sa ay nit di jaay arrogance di jaay xamadi

ñuy tirer ay grenades lacrymogènes ci ci hein? lan fait ko bi mu bi mi topé bi dem ay la mais c'est des lâches mais Macky Sall li nga bëgg loolu que nekk de entre le marteau et l'enclume bëgg éliminer président Ousmane Sonko ci yu ba bëgg Sénégalais par force jaay leen en utilisant la justice et les forces de l'ordre

ñak daan sa doole nga ñak jom ko yow sa lay jël manam l' du contribuable bi nga xamne dañ ka la famille présidentielle ak ay ministre ñu andal ñep ñew ko joxat yow francs et 30 000 francs pour ngay dem di song ay nit ne il faut pas se laisser faire nervi bu dara bépp bi bu jema dal ci sen kaw riposte len ngeen nokku len duma len duma yi métti amuñ ben njëriñ gis nga mbeuri ñak jom yi nek ci lamb ji ni ñu ci bari amuñ ben njëriñ duñ sax entraîné buñ amé combat lañuy dem sal yëkëti quelques weñ rek ñëw togaat amuñ ben njëriñ amna ay xalé yo xamanteni tay ma suñu ay xalé yu ndaw lañ man lañ leen yu parce que dañu ñak jom nervi mom ku ko jur juro dom mbam nga jur waaw parce que li gën a yées ci àdduna mooy jur nervi xam nga jur mu dee taxut a yara dal mais jur doomi nervi mooy yara dal maa ngi ci dégg ay Papa Sow ay Siteu ak Zarko ñooñu duñ dara lu dul ñàkk jom gis nga mbooloo mi topp président Ousmane Sonko nervi yu leen song Billahi wallahi t'allah da ngay xaru dinañ la duma ba nga xam ne lépp dëgg la xam nga Siteu temps yile bi fi génnee ñu autre manifestation mu génn naan waa nous gën duñ génn ak baat bu ce rien là xam nga lu ko doon wax loo lool mu ngi nii di soog a feeñ tey rek moo doon wax parce que dafa dem collaborer ak gars xam nga temps yi fi doon kaas bi dafa amuñ xam nga wax ci ci façon rek yow président Ousmane Sonko dañ lay récupérer Doro Gueye dem récupéré ko jox ko ay cek-cek mu jox booy jàmm gën léegi nag loolu moo tax nag bi Ousmane Sonko ootee manifestation mu ne bu kenn génn pour gars yi kontaan ci moom quoi parce que mu ngi liggéey gars yi léegi collaboré ak Amadou Sall Amadou Sall mu ngi koy jox xaalis te keroog bi ñu tojee vitre président Ousmane Sonko vitre oto bi mais ñi njëkk génn jàmm gën ci lañ bokk wan ko ne ko yow fenkat nga yow faale wuñ la tekki woo dara ci dëkk bi bànni nga tu es un délinquant loolu la ko waa jaama gën yi wax ne ko doo dara tekki woo tous temps yi maa ngi ko dégg mu ne doon tabaxal benn xaritam bu je àdduna kër maanaam pour may ko yaayam je xaritam boobu loolu baax na mais attention ah Amadou Sall mën na ko sax jox je de ne ko tabaxal kër gi ah wala Doro Gueye dégg je ñu ne Papa Sow moom moo defar meuble yi fan la jëlee xaalis bu muy jëndee ay meuble yow koo xamante nii nee nga bay nga beure te yow ta nga nekké sa digg na di beure sax bo beure bala nga beure wat ay ñenti at foy jëlee xaliss lan lay def dañuy dem collaborer ak gaay utiliser sen tur ñu leen di jox xaliss ñuy def sal bulo mais billahi wallahi wa tallahi gaay ñu leen di xaar ci terrain bi Zarko momit ku ko gëna a jom amut affaire de banditisme lay jaay ñu ko gëna bandi fouf ñom ñoo nekk fofu non gis nga boy top Ousmane Sonko wër leen man nañ leen a duma ba lem leen takk leen dugal leen ci ay pick-up te ñu ngi leen di xaar ci terrain bi da ngeen di jaay ñàkk jom war a dem liggéey ah nekk fii ñu leen di fay xaalis ngeen di ñëw di tooñ ay nit seen ay moromu naw la ngeen leen di tooñ naan da leen di attaqué Ousmane Sonko lancé na appel mu leer nañ nee na nervi bu ñu fi jàpp billaahi sa ay mbokk dinañ la ñàkk parce que fii kenn du fi toog benn nit ku tekkiwul dara nervi ñëw di dal sa kaw di la ray ku nervi ray rek yow ku ñàkk fayda nga ku nervi song danga ko war a jaay sa bakkan bi bu leen jàpp na nit day nekk mbër rek ngeen jàpp ne moo war a man nit ñi seen làmb jii du dara da nga ciy gis koo xamante ni day préparer combat un ñëw ñu dóor ko mu daanu amuñ benn njëriñ duñ dara am na boo yoo xamante ni tey mën nañ leen a téye duma leen duma yu métti kon daal nañu continuer résistance bi manifestation yi nag continuer sur toutes les l'étendue du territoire national parce que c'est un droit Quel waxu fi ne dañuy toj vous waxu fi ne dañuy que quel oote wu fi xeex luñu vous manifestation résistance mu un droit constitutionnel un droit fondamental ken amul droit di interdire manifestation na wa Sénégal yeb genn wan Macky Sall nga ken do fi def troisième mandat te président Ousmane Sonko ken du éliminer ci ay yu ñàkk fayda yii nii ay dossier euh, diffamation ah Mame Mbaye Niang ñaata yoon la toog si tele yi saaga Ousmane Sonko ba mu tooy xep teg ko ci xamadi ak reewaandeeg arrogance parce que Macky Sall sur cette base lay tànnee ay ministre moom boo nekkul nit ku bon nekkoo saagakat Macky Sall du ànd ak yow soxlawul intellectuel soxlawul ko am éthique soxlawul ko am classe soxlawul ko am personnalité ay ñoom Pape Malick nduur ah sagaru doomi aadama yu yées yooyu noonu la soxla xeetu nit ñu bon ñooñu nga xam ne pour ñoom nekk ministre jar na yow ngay ñëw di saaga ay nit quoi xam nga parce que Macky Sall moom daf naa la dama saaga Ousmane Sonko ma def la ministre wala ma jox la benn poste moom ñi doon saaga Ousmane Sonko ak ñu comploté Ousmane sonk yëpp daf leen a décoré tey ñoom ñëpp tey décoré na leen ku nekk mu jox la poste xam nga diffamation yow nit koo xam ne da ngaa sàcc xaalis Sénégalais yi vingt neuf milliards heure bi waroon la fekk ci kaso Ah, bu ñu dans un vrai état de droit Mame Mbaye Niang dina nekk di taxawaalu ci deuk bi naan day porté waate plainte Mame Mbaye mo moo tekkiwul dara un vaurien un moins que rien kooku nenañ mom mo moo porté plainte Ousmane Sonko parce que dafa warone a wax IGE IGF e, na IGE waxne amna ben rapport rapport bi dëgg la de moom wax na ko Amadou Ba wax ko ibrahim Touré bind ci livre porté wu plainte nee Ousmane Sonko muy wax ne euh, rapport amna kok lay porté plainte Max Sall dem ut ay jugeum bien le procureur mandicat Amadou Diouf ñoo di ci yok naan ay injure publique <laughs> ay de documents administratifs ay diffusion de fausses nouvelles ak sen yeuf yi fayda yoy non ñu le président Ousmane Sonko bi nga xamné des centaines et milliers de sénégalais des centaines de milliers de sénégalais ñoo am ci petit yaakar top ci mom yaakar pour mu nekk président de la république gëm projet bi ñu dañ koy éliminer ci fayda yow dañ lay rendre inéligible bu ben sénégalais nangu même ku àndul ak Ousmane Sonko bul nangu parce que nous wara consolider la démocratie sénégalaise ak état de droit mais suñu nous yop raw nañ ñun biñi nek état quatre communes yi am Sénégal fofu nous di nek ay villes comme Rufisque Saint-Louis Dakar Gorée temps la colonisation mais dëkk yi ñi raw nii hein ci walu démocratie ak état de droit ak bonne gouvernance mais depuis dëkk yoy existé goul sax. xoolal Cap Vert ñu ngi nii dend ak ñun nekk ci large yi ci océan Atlantique bi ah nekk benn île boo xam ne bëriwul sax nit xoolal léegi état de droit moo fa am ñu ngi am ay alternance yu set wecc du ñu am benn crise électorale ku ñëw def sa ñaari mandat dem ah xoolal Ghana ah xoolal Niger xoolal Bénin ah, dëkk yooyu yëpp tey amatuñ ay crise électorale léegi ak ay tension politique ku ñëw da ngay def sa ñaari mandat dem Amna ñoo xam dañuy sax def ben mandat ñu gagné len ñu dem hein? mais ki ñëw du ñu delloo soit ci ay waxu 3e mandat hein? mais loolu gàcce la Motax na Sénégalais yépp mobilisé wu nek ben. xex pour la démocratie xex pour la république mais pas pour Ousmane Sonko xeexuñu pour Ousmane Sonko bo nekké ci dëkk ñi néewal nit doolé bëkk jaay doolé ño xamante ni bëriwuñ benn procureur rek ñetti juge ne ñoom ñooy toog invalider candidature nit koo xam ne des centaines de milliers de sénégalais ñoo am si moom yaakaar topp ko mais loolu kenn waru ko nangu nañu bañ loolu bu ñu ko nangu bu ñu ko nangu parce que bu ñu ko nangoo dafay yomb nangu woon nañ ko mu def ko Khalifa Sall def ko Karim Wade mais troisième bi warul nekk le président Ousmane Sonko fii la war a jeexee pour ëllëg kenn dootul amati fit di ñëw naan da ngay utiliser ay justice justice bi ñàkk fayda nanguko révolution bi dafa wara devons aboutir ñu Sénégal parce que Sénégal dafa yaq Macky Sall dafa dévaloriser les institutions affaiblir les décrédibiliser les ñun on a plus d'état au Sénégal depuis l'arrivée de Macky Sall monarchie mon fa am lu neex way def ci ñu and ak mom te dara du leen ci fekk il faut que ça cesse té lool ñun ñoko mëna nañ dem jëli suñ ay carte donte révision bi révision exceptionnelle la def nee na te wartoon nekk exceptionnelle parce que année bii du année électorale dafa waroon a ubbi fichier bi def révision six mois pour